saaga ay jigéen ñi nga xam ne dañuy sukk koo xam ne yéenee xam taxawaayam du lenn lu dul bëgg Sénégal mu avancé loolu nag daf may indi ci mastaw Ousmane Sow di ko mastaw lool di ko ko wax xam nañ ni waaye gënal dëgër masta coono ndax Ousmane yow li nga dund ci politique dund ko ci Sénégal bu yeboo am ñu ne est-ce na ko de yow Ousmane jàng nga ñu dàq la rajjee la ci li nga xamante ne sax xam sa njàng say waajur la ci dugal Ousmane sa politique bi nga dugg tax na ñu privé la de tas yu privé privé la de liberté privé la de santé léegi nag li ci des mooy privé la même de ta citoyenneté mooy li nga xam ni moom la la sénégalais yi Sénégal jox nga bokk ko ak sa moromu sénégalais yëpp lenn kese moo dese état bi fi ne nii ak Ousmane Sonko mooy daal di xëy rot ci nationalité sénégalaise ne ko dootoo Sénégal lu weesu loolu amul luñ ko def amul xeetu primat bu mu dund te lu ko waral bëggam Sénégal lu ko waral amam une vision lu ko waral jàpp ne am naa solution pour que Sénégal change loolu képp moom moo ko waral loolu ñu taxaw nag tey muy yéeneem ci Sénégal te Ousmane lu mu wax dafa ni bis ma jëlee réew dinaa delloo Sénégal Sénégalais dinaa delloo ak ak yeneen sénégalais dinaa jël Sénégal teg ko ci kanamu multinationales yi mu am nag un complot international contre sa personne. un complot international parce que nag bu ma nee complot international damay indexé la France les États-Unis les lépp lu nekk kuréel droit de l'homme ci àdduna parce que nañu waxante ne droit de l'homme premier mooy le droit des concitoyens libres loolu du Sénégal moo ko jox Ousmane Sonko déedéet loolu les Nations Unies ñoom ñoo ko ratifié. ne bépp doomu aadama fu mu munti nekk dafa am droit ci intégrité physique am dafa am droit ci ay liberté dafa am droit ci ak ak yelleefam te loolu moom la ñuy violé pour Ousmane Sonko mais gisuñu benn organisme international mu yëkkati kàddoom taxaw ci wax dafa mel ni mbir bi da leen a arrangé pourtant ñu ngi leen di dégg barki démb Ukraine politique lu am dans d' autres pays dès qu'il se lu gën a tuuti mooy def nañu ay condamnation mais là on assiste à un être un être humain un individu parce que moom ci ay croyance politique am moom ci position politique am moom lañ ko boddee moom lañ ko stigmatiser moom lañ ko persécuter et les gens vont jusqu'à ne pas respecter les textes de loi ne pas respecter la justice ne pas respecter les institutions te justice boobu ñu bañ a respecter tey tëj na fi ku nekk ay nit yi di tëj nañ fii ci Sénégal ndax outrage à magistrat mais quand c'est la République quand c'est l'État ils ont le de faire du ma ñëwaat ci taxawaay bi lu yokk ci rek ne ñëpp xam nañ ni ñi toog ci table bi ku nekk ci ñoom képp mën ngaa taxaw ne allié wu Ousmane Sonko waaye du ñun kese ndax ci ñi ko bëgg ak ñi ci bokk ba pare nañ dafa fekk rek ne fii Sénégal toll loo gis rek dafay am initiative loo gis dafay am ñu ko jiitee loo gis de am ñoo xamante ne ñoom ñoo def les premiers pas mais su ma yeboo ne ñi ñu bokkal langue politique bi ñu bari ci ñoom ñoom ñëpp seen ay place mu ngi fii tey te bu ñu ko yëgoon tey xëy kenn du leen ci jiitu ma leen di appelé waat nag ni ko jant euh, defee ñu xam ni ce qui se passe tey au Sénégal dépasse na des histoires de de d' ambition politique il s'agit de l' avenir du Sénégal mais il de l' avenir de l' parce que ñi nekk di comploter pour que Ousmane Sonko ak pour Sénégalais yi ànd ak moom bu ñu def bu ñu exprimer seen voix ci élection yii di ñëw def defuñu ko képp benn parti politique Pastef wala benn candidat dañ ko def l'ensemble de l'Afrique qui est debout l'Afrique kii ba récupérer ses ressources l'Afrique kii ba changé de politique l'Afrique bi nga xamante ne moom moo bëggatul gis ay doomam ñu dugg ci gaal yi di dee Afrique bi nga xamante ne moom moo am diaspora bi bëgg a ñibbi si Sénégal Afrique boobu taxaw def benn say bëgg taxaw na xool son destin xool son avenir ba pays africain yi nekk fi nekk des alliés du candidat Ousmane Sonko des alliés de nous-mêmes opposition Afrique boobu la ñu bëgg a faagaagal en brisant le rêve parce que bu ñu briser cette force cette jeunesse cet espoir c'est-à-dire que rien ne sera plus comme avant dans nos royaumes d'Afrique parce que nag on a beaucoup pleuré des coups d'État on a beaucoup pleuré des situations ñu nga xam ne ñu ngi koy am ay coach fii ci àdduna sa Afrique ko wër mu tardeel mais lii nekk di raam mooy tu d'état bi gën a horrible ci coup d'état yi mës a am parce que avant ay ay ay ay armée ñu ngi ñëw jël pouvoir mais là c'est un groupe d'individus ñoom ñoo bëgg a jël le pouvoir des mains des populations le pouvoir de la jeunesse le pouvoir de toute toute nation loolu coup d'état mënu koo ëpp mënu donc nag dafa laaj nag taxawaay suñu wet dafa wax laaj ñu dépassé suñu ay personnes ñu jiital suñu nation jiital suñu Afrique ñu taxaw ñu taxaw temm nag ba nit ñuy condamné coup d'état ñu condamné lii Macky Sall ak ay ñoñam bëgg a def du ma détaillé lépp parce que ñi fi toog kenn ku nekk di nga ñëwaat ci lu nga xam ni jot naa koo fàtte wala lu lu ma def manquement di rek euh, yëkkatiwaat kat di wax ne grève de la faim bii Ousmane